lan mooy secret bi. non amul secret bon man bi may ñëw mbappat moo tax ma jóg ba léegi ñu jàppale toujours ma wax ko ñoom day kumba interview nañ ñu si ba tey jàppale bi war ci mbapat buñ ko amoon heure bi ñu ngi wax ay galaaw 40 50 millions toujours ma wax ko te li ne si mbappat nekkul ci lutte avec frappe man yàgg naa gis loolu mbappat moo ma intéressé parce que lamb lamb pur la euh, tradition la culture la lépp a ngi ci biir et non violence en plus je ne vois pas pourquoi sponsor yi boo leen waxee ils ne veulent pas parce que événementiel lañ bëgg bon mooy loolu daal. c'est-à-dire pour yow kon lutte simple moo ëpp li nga xam ne moom la war a dugal sax lutte avec frappe. oui lutte simple lutte simple toujours mooy ëpp mooy ëpp journée mooy ëpp lépp boo ko xoolee ci ci ci ci kii wu CNG chaque année bu ñu calculer nañu xool y a plus de licenciés y plus de journées y a plus de ceci et de cela CNG jàppalewu leen ñeneen jàppalewu leen il faut il faut appeler le taureau euh, taureau il faut appeler un mouton mouton li ñu ci war a jàpp pour ñu dem jàppuñ ci da ngay bëgg a def dara wax leen ko sax ñu bañ loolu c'est réalité non lutte avec frappe lañ gën favoriser la preuve début de saison bu ñuy tànn dat ñun duñ duñ duñ bokk fuñ ko teg duñ bokk promoteur d'or yi ñooy tànn ba pare ba doyal ñun ñu door a ñëw tànn kañ la ñuy liggéey man je croyais que promoteur égal promoteur. du benn deux poids deux mesures la et c'est ça la vérité. waa Jax ñu demaat lekk euh, promoteur yi gis nañ làmbi simple ak nu mu demee. dama ne mhm. ñun waa promoteur de lutte simple bu ñu laajoon ñu fay trois cent mille pour licence ñu fay ko tolloog waa dóor droit bu tànn jotee ñun ñëw toog ak ñoom tànnandoo. mënuma comprendre man Jax ma def huit journées de lutte simple def trois journées de lutte avec frappe saison bi ubbi ñu tànn date yi ba ma fu ñu ko teg ma investir plus de vingt millions en lutte simple année dernière waxuma lutte avec frappe bi anne bi ubbi ñu bañu ñun waa lutte simple lan la ñu am Adrien Senghor kese mooy suñu arène loolu normal la ci population Dakar ni mu toll ak amateurs yi fu ñu nekk Grand Yoff kese xajul Adrien Senghor waa Grand Yoff kese xajuñu fa. marché na nga jël marché Tilène marché Colobane feneen feneen feneen ñoo ñëpp bëgg seetaan làmb nu ñuy def que faire problème bi. donc problème bi dafa mel ni kon euh, CNG mooy problème bi. non problème bi c'est un problème d'ensemble c'est un problème d'ensemble CNG mooy diriger mooy diriger moo defee noonu lutte simple bokkul je le dis tout haut dóor yi ñooy tànn ba pare ñun waa lutte simple ñu door a ñëw. ñi jiitu door a ñëw moo tax toujours man maa daan jëkk am date parce que bu ñu démarré à ubbi octobre man maay jëkk jël licence dóor yi ñoom ñëpp xam nañ ne janvier la ñuy commencé ndax ay sponsor la ñuy wut ñun tëgguñu ak sponsor moo tax toujours man maa daan ubbi làmb daanaka ci lutte simple parce que bu ñoom bu ñuy tànn janvier man bu ma ñëwee ne novembre laay tëgg kenn du xëccoog man parce que doo jël naa ay ay ay kii ci lut lutte avec frappe donc man maay jiitu waa lutte simple maa leen ëppale journée ba pare man tëgg naa lutte avec frappe donc je le premier à tànn dat ci waa lutte simple moo tax toujours dama daan tànn dat au no début début fin novembre début décembre avant àll bi di commencé ñun ñu commencé dóor fii làmb ji commencé xum fekk nit ñi namm làmb mais ren ñu nekk di xeex ak ko xuloo ci affaire CNG day wàcc du wàcc ba janvier ñu ubbi affaire bi waa dóor yi daw akimo ko fu ñu jëm man aw ma dama mujj binda lettre CNG pour le premier mais moom lañ ma jox Ibamar Fallou Ndiaye moo modifié benn datam pour tëgg fa benn gala moo tax ñu am fa galaaw 2 millions lii moo fi am amul leneen. alors que Jax dafa mel ni mise yi nga xam ne moom nga bëgg a tëgg carrément xëjuñu Adrien Senghor. non dafa xaj mënu fa xaj Adrien Senghor ñëpp xam nañ ne boo passé 1 million coow la fan yii passé rek bind naa CNG pour def 1 million cinq pour permettre les poids légers ñu am 500000 mais en en toujours en respectant ordre bi fa am mooy 30 64 lutteurs yi parce que man du ma koy andi désordre. boo nee deux catégories ñu yaakaar ne 64 64 non 64 lutteurs la dañuy def 32 lourds 32 légers mais bu dee un million boo ko naree dagg jox ci lour yi jox ci légers yi day ndaw ma ne nañ ko yokk 1 million 5 légers yi am 500000. Euh, jërëjëf Jax ñu bëggoon am rek comme malgré contrainte yooyu di am yëpp. Mhm. gaa yi ngi laaj ci Jax Jax mais balaa booba euh, lan nga ci xalaat comme solution. Ah, solution ñoom ñi jiite ñoo koy xalaat ñun amuñu luñ ci xalaat. ñun dañuy yóbbaale rek buñ ne ñu lii la ah ñu topp ci rek mais je ne pense pas que yëf yi changé parce que la lutte avec frappe a toujours été privilégiée loolu ñoom duñ ko weddi donc ça va continuer comme ça lutte lutte simple c'est le parent pauvre de la lutte et pourtant ñoo gën a bari ñoo ëpp licencié ñu compétition gën a neex donc la preuve drapeau de chef de l'État sax duñ ko def bëre dóor bëre simple lay nekk loolu moo lay wan ne mooy vraie culture bi mooy vrai làmb ji. bëre dóor dañuy wax suñu cosaan la mais du suñu cosaan tubaab ba ko fi andi suñu vrai cosaan mooy lutte simple du bëre dóor nga njaañ wax na ci ba tàyyi ab tubaab moo fi jëkk tëgg bëre dóor ci kaw cinéma voilà donc suñu cosaan lutte simple nañ xoolaat li ñuy def ñu jàppale lutte simple waaw jërëjëf malgré tout ça euh, problème yi bëri na c'est vrai waaye ñu ngi naan ana jax ana jax kañ lay tëgg fan ñaata chaque jour amateur yaa ngi laaj lan ton nga ci am. waaw parce que amateurs yi li bëgg ñoom mooy événement événement bu mag lañ bëgg ni ñu niñ leen ko tàmmalee voilà mbër yu mag yi daje waykat yi ñëw tëggkat yi ambiance am ñëpp daje kontaan. xam ne tey nattante doole la day nekk journée bu mémorable loolu la loolu laa leen tàmbal bi ma ñëwee ba léegi te ren amuñu ko moo tax ñuy laajte rek Fallou Ndiaye bi muy tëgg woo na ma téléphone di ma laaj nan laay def ma ne ko mu ne 2 million ma ne ko déet yokk ci 500000 ndax léger yi bokk mais defu ko ndax fa may waxee xamu ko bëre dóor la min comprendre nga donc loolu la léegi nag ah premier mais lañ ñu jox. incha allah balaa ñuy woor ah gars yi ut si suukaru koor rek bu soobee yàlla. balaa premier mai am am nga beneen date euh, ñu gis euh, feuille yi dem nañu info yi commencé nañu dem question yaa ngi ñuy bëgg a rey kañ la fan ñaata. 4 avril Adrien Senghor incha allah 1 million comme ñëpp comme ñëpp rek. 1 waaw amul leneen mënoo def plus. Hmm. ci laa doon demande pour yokk ñu ne ma mënoo yokk ma ba ñu def ni ñëpp di def rek. mais un million à Adrien Senghor entre deux mille deux mille cinq cent comme tout le monde ñu préparé nag a partir de 4 avril ñu préparé nag premier mai incha allah waaw premier mai nag moom mooy affaire bi. waaw mais xam nga 4 avril euh, gars yi dañuy am comme lu mel ni fête. mooy suñu arène daal comme loolu la ñu am comme donc euh, et Pangol c'est sama papa donc l'association on est tous dedans donc euh, à défaut d'avoir Iba Mar on a quelques dates à Adrien donc 4 avril. date la amaat nañ je bi beneen am naa fa ñaari date encore ci mois de juillet ci fin de semaine waaw Adrien Senghor. waaw mais euh, Diaks kon dafa mel ni daal euh, tëgg Adrien Senghor vraiment dañ ah waaw lu li problème bi lu tax mënuñu am a Mar Diop ah waaw loolu wax nañ ci ba pare Iba Mar ah. demande bi dafa forte promoteur dóor yi ñooy ñooy prioritaire comme j'avais dit donc bu ñu xasee ba tànn date yi tànn nañ date yi date bi xam nga mënoo ko c'est pas extensif boo xasee ba jël benn dimanche jeex na kenn mënu ci jot te lamb simple du samedi lamb simple du lamb lamb simple du samedi lamb simple dimanche la parce que ñiy seetaan simple dañuy liggéeyi dawalkatu sareet bi la. borom pousse-pousse katu fer bi la manœuvre chantier la mm-hmm. euh, jaaykatu gerte la ak yeneen ak yeneen ci marché yi euh, waaskatu jën ba la et cetera et cetera et cetera c' est des gens qui travaillent dimanche rek la ñu am. ok voilà. Euh, arène nationale la. arène nationale la ci wax. non arène nationale moi j' ai dit depuis longtemps je man dëgguma fa. arène nationale arrangé wu ma man en tant que promoteur de lutte simple. ça mais lan moo tax arrangé non parce que arrangé wu ma j'en ai parlé ci ay interview yu dul jeex j'en ai parlé. on va pas revenir dessus pour perdre du temps. man tëgguma arène nationale. ça je le dis tout oh, haut et tout fort bu fi arène nationale kese dese. Hmm. ma jël samay kaak ak sama yëpp delloo leen tourné ci leneen. bu ma bëggee dem ci région yi am fa dara ma dëgg fa su ma mën a dëgg ci région yi su ma arène Senghor mayee dat ma dëgg fa ñëw toog jàpp sama jàmm. ñu eh, ngi séntu Jax ci lutte waaw ndax nga ci journée. Eh. waaw lutte avec frappe benn journée la incha allah mooy kañ le 10 juin lundi de Pentecôte waaw jour boobu la ñuy tëgg avec frappe Iba Mar Diop benn journée la fa am le premier mai ñaari journée bu pare moom mooy pare na Adrien Senghor moom juillet moom dañuy mottali saison bi rek noonu la saison bi tëddee la. waaw avec frappe bi combat ba taxawagum na. non non non amagul combat bu mag hmm. mais combat yu ndaw yi ay boy la yoo xam ne hmm. daaw yi. te bëri woon nañ samay journée mm-hmm. daal di prouvé mm-hmm. ma joxoon avance daaw mm-hmm. ñooñu ñoo gën a tax sax ma tëgg journée bi sinon kon doon ma ko tëgg rek dama naroon xaar ba déwén ma door a jël licence teel a wut tam waaw. Euh, ma dem ah. waaw comme moo di yi ni ñu ci waxee rek la boo boo tëggee ci région yi région yi amuñu koom région yi ci tane mooy bu jën bare gars yi am tuuti xaalis mën a feetu nga Mbuur Joal et cetera et cetera ak voilà Fatick dafa bari politicien moo tax souvent làmb yi di fa bu fay tëgg euh, l'autre la ajuma te lépp c'est làmb ay làmb politique la boo ko xoolee ba xool amul koom nit ñi dañuy bëgg làmb moom la ñuy dund war ko seetaan mais amuñu xaalis pour fay te ça la vraie réalité de ce pays les gens pas de sous man dëgg naa làmb ni ñuy takk teg ay saret ci bu ci miiru làmb ji teg ci bëri bërigo yéeg ci kaw bërigo di seetaan te entre 1000 francs la woon 1000 francs sax amuñu ko pour fay nga xam ne c'est catastrophique nga gis ay jigéen ñu sañse ba rafet ndeysaan ñoo wër nekk ci tuuru làmb ji di xaar ku leen dugal j'avais un pincement au cœur Pelé a gagné alors c'est là où j'ai compris que nit ñi bëgg nit mais amuñu parce que déjà pour dund rek problème la ku dëkk ci àll bi xam na li may wax ndax da lekk nekk Dakar di liggéey yow yaa yor sa kër alam di yónnee la ñuy bay nawet nag yoroo nañ il faut ñu am dépense bu ñu ci complété. donc boo ci xalaatee loolu a génnaat ay mille ak deux mille naan ngay ay lamb attends les gens veulent mais économie dëkk bi doxul wax ji foofu la nekk mu am répercussion nag boo bëggee dem àll ba ne da nga fay tëgg lamb te amuloo parrain bu ko fay da ngay sànni sa xaalis man maa ko wax su ma amee parent fi ma yóbbu ma dem mais parrain mooy technique bi de. bu ko defee mm-hmm. mu ne maye naa la ji kenn du ma fay dara mën naa leen ko may ma sama ñax mën naa ko may mais je risquerai plus mon argent à l'intérieur du Sénégal waaw dem naa ci ay yoon yoon ci feneen ay ay zone gis naa lu fan zone yi si tane daal mooy côtière bu jën amee mm-hmm. waaw ci li ma gis <laughs> c'est la Chouette qui parle euh, euh, Walento <laughs> ñu ngi ci Jax ba léegi Jax lam ji am tolluwaay rëg-rëg am lu mu fi def daaw def ko fi daawaati jéegati yooyu waaye ren mu ñëwaat defaat surface amoon combat dara xaw ba mu ñëwaat nag di jël rek looy wax ci moom rëg rëg hmm. mbër biir la mbër day am compétition rëg mbër biir la li mu def ci lutte simple amul nit bu ko mus a def au Sénégal dans l'histoire du Sénégal